daleen ak jàmm seen seen bi di Buzz M TV ci seen acte du jour régime président Macky Sall tàmbaleeguñ di amal ay enquête jëmale ko ci ñaawteef yi ñu fi amal ginnaaw bañ leen dénkee réew mi waaye ñaawteef yooyee ñoo ngi tàmbalee feeñ lu sabab lu tax ñu ni mel moom mooy que ne waa yeewu askan wi ginnaaw bañ fi bëggee amal benn manifestation nguuru réewu Sénégal dañoo fommoon manifestation boobee ndax ñoom ne dañoo jàppoon ab terroriste bu doon uyoo ci turu kii di usmaan Kabiline jaata te ñoom ne kookee di Ousmane Kabiline jaata ab rebelle bu bàyyeekoo Casamance bokk ci waa MFDC te kookee xaritu kii président Ousmane Sonko la te lu sababoon mu ñëwoon ci manifestation boobee waaye Yewwi Askan Wi organisé woon doonut woon lenn lu dal di fay amal ay attentat terroriste ginnaaw li ni mel nag ki di Nicolas Sambou di rakk ci kii di Ousmane Kabiline Diatta daal nay génn andi ay leeral jëmale ko ci mbir moomee kii di Nicolas Samb ne en réalité magam boobee waa état bi di wooyee Ousmane Kabiline jaata ne kookee tuddul Ousmane Kabiline Diatta waaye Ousmane jaata tout court la daal di tudd ne procureur de la république ci complicité état bu Sénégal ñoo ci yokkoon Kabiline bi ngir gën tiital sénégalais yi daal di leen di gëmloo ko ne kookee ab terroriste la waaye tamit ginnaaw li ni mel kii di Nicolas Samb daal dinay wéyal ne moom ab chauffeur la Dakar dem dikk lay dawalee waaye ne ci mbir moomee état bu Sénégal jàppale woon na ko ci te ne ginnaaw bañ leen jàppee ba yóbbu leen kaso dañ leen jàpp moom ak ay xaritam ak ay àndandoom daal di leen di dig ku nekk si ñoom cent millions de francs CFA ak ay passeport diplomatique yi nga xam ne ne ñoom dinañ ci bénéficier seeni mag seeni rakk ak seeni doom ngir mën a génn réewu Sénégal bis buñ taqalee kii di président Ousmane Sonko daal di wax sénégalais yi ne kookee moom moo leen yónni ngir ñu amal ay attentat terroriste ci réew mii di Sénégal. waaye kii di Nicolas Samb daal di woyal ne moom ak xaritam yi jàppandoo woon ci mbir moomee ñoom ñëpp ñoo bañoon ba daal di tëdd ci suuf si lu état bu Sénégal bëggoon a jaaree ci ñoom ngir yàq image kii di président Ousmane Sonko waaye tamit ginnaaw li ni mel kii di Nicolas Samb daal dinay woyal ne. magam bii di Ousmane jaata te sénégalais gën koo xam ci Ousmane Kabiline Diatta kookee ba tey ñoo ko daldi di ci kaso bi te ne voté nañ loi d'amnistie ci réew mi di Sénégal donc comme moom niñ ko bàyyee noonee lañ war a bàyyee magam bii di Ousmane jaata te sénégalais gën koo xam ci turu Ousmane Kabiline jaata ginnaaw li ni mel kii di Mansour Cissé di ab chroniqueur yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci lan moo war a nekk taxawaayu kii di Amadou Ba ginnaaw bu ko kii di Bassirou Diomaye Faye gagné fépp ci réew mi di Sénégal bu bëggee am ab carrière politique bu daal di mucc ayib. si li ni mel kii di Mansour Cissé ne ci waxtu bi ñu wax nii ci réew mii di Sénégal kenn werantewul que ne kii di Amadou Ba moom mooy leader de l'opposition ndax kookee moom moo jël deuxième ci élection présidentielle 2024 ñu génn waaye tamit ne kookee di Amadou Ba si lu ko desee ci carrière politique am am na ñaari option ne option bu jiitu moom mooy que ne. kookee di Amadou Ba daal di continuer daal di nekk leaderu coalition bi ñu dippee Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ne kii di président Macky Sall moom moo ko ko jagleel. ne si premier option boobee nag dina métti lool ci kii di Amadou Ba ndax ne ci biir coalition bii di Benno Bokk Yaakaar am na ñu bëri ñi nga xam ne ne jàppewuñ wuñ kii di Amadou Ba comme seen leader te ne ñooñee tamit ay ténor lañ ci politique réewu Sénégal ne beneen option bi nga xam ne ne kii di Amadou Ba mën na koo amal moom mooy que ne. mu daal di démissionné ci coalition boobee di Benno Bokk Yaakaar daal di créer propre parti politique am ba noppi daal di nekk leader de l'opposition daal di fas yéene jàmmarloog kii di principal adversaire am di kii di président Bassirou Diomaye fay kii di man Mansour si ne ñaari option yooyee rek la kii di Amadou Ba daal di am ngir daal di continuer carrière politique am ci réew mi di Sénégal ginnaaw li ni mel journal bi di Les Échos ginnaaw bañ jokkook benn prosu président Bassirou Diomaye Faye ak kii di président Ousmane Sonko ñoom ne kookee daal dina leen di wax ñu na ma nekk ci gouvernement bu bees bu kii di président Bassirou Diomaye Faye na ma amal ci réew mii di Sénégal si li ni mel waa journal bii di Les Échos buñ sukkandikoo ci seen su boobee kooku ne kii président Bassirou Diomaye Faye dina fësal liste gouvernement bu beesam bi le 5 avril maanaam bés bi nga xam ne ne moom mooy topp ci bés bi ñu doon amal feetu indépendance ci réew mii di Sénégal ba tey journal bi di Les Échos ne buñ sukkandikoo seen source boobee kii président Bassirou Diomaye Faye ci gouvernement bu bees bu na ma amal ci réew mii di Sénégal dina bëri lool ay technocrate maanaam nit ñu bëri xam-xam lool bëri lool ay lijaasa waaye duñ laale dara ci politique waaye tamit ne ci gouvernement bu bees boobee kii président Bassirou Diomaye Faye na ma amal dina ci boole ay politiciens yi nga xam ne ne dañoo bokkoon ci coalition Diomaye président te ñooñee daal di koy dimbale ba jël ndam li ci réew mii di Sénégal mais si politiciens yooyee nag ci di président Bassirou Diomaye Faye ñu mu ciy tànn mooy ñi nga xam ne ne ñoom ñoo ëpp compétence ci domaine bi nga xam ne ne moom leen leen di doyee. ginnaaw li ni mel tamit journal bi di Les Échos ne buñ sukkandikoo seen su boobee ba tey ne kii di président Ousmane Sonko du nekk leen lu dut premier ministre ci gouvernement bu bees bu kii président Bassirou Diomaye Faye n'a ma amal ci réew mi di Sénégal kookee di président Ousmane Sonko moom mooy nekk premier ministre ci gouvernement bu bees bu kii di président Bassirou Diomaye Faye di samp le 5 avril 2024 bi ñu jëm ginnaaw li ni mel kii di Cheikh yirim Seck ak kii di Ahmed Khalifa Niass mi nga xam ne ne dañoo amoon discours bu radical daal di koy jëmale ci camp kii di président Ousmane Sonko ak képp ko bokk ci Pastef ñooñee ñoo ngi commencé di diluer seeni wax di ko neexal jëmale ko ci waa parti bii di Pastef si li ni mel kii di Cheikh Yérim Seck nga xam ne toogoon na boo xam ne s'il le faut ñu daal di rey quatre pour cent ci sénégalais yi ngir daal fi andi justice te ñëpp xam nañ ko ne ba mu yëkkati kàddu yooyee waa parti bii di Pastef la doon waxal kooke daal dinay dellu ginnaaw ginnaaw ba kii di Bassirou Diomaye Faye écrasé kii di Amadou Ba fépp ci réew mi di Sénégal lu tax ñu wax li ni mel moom mooy que ne. kookee di Cheikh Yérim Seck di doon wax fépp que ne waa parti bii di Pastef mënuñu politique xamuñu politique te seen xeetu politique du mën a diriger réew ñu di Sénégal ginnaaw ba kii di président Bassirou Diomaye fay gagné kii di amadu Ba bañ ko laajee jëmale si li ni mel daa daal di reculer daal di wax que ne balaa mu ci amal benn kàddu faa mu bàyyi kii président Bassirou Diomaye fay installé gouvernement bu bees mu daal di koy seetaan lu tolloog cent jours ba noppi muy soog a daal di àddu jëmale ko ci kii di président Bassirou Diomaye fay waaye tamit ginnaaw kii di Cheikh Yérim Seck kii di Ahmed Khalifa Niass ak lépp lu mu yàq waa parti bii di Pastef ak kii di président Ousmane Sonko ginnaaw bañ falee kii di président Bassirou Diomaye fay kookee daal dinay génn daal di invité waa parti bi di Pastef ñu daal di fusionné wu ak parti politique yu nekk ci réew mii di Sénégal yépp te di uyoo ay patriotes ndax ne moom parti bu mu jiitee front des alliances patriotiques la daal di tudd donc ne parti boobee mën naa bokk ci parti bii di Pastef ñu daal di créer ab ngandam parti daal di diriger ndoo réewu Sénégal. lii la ñaan andi loon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen i mbir incha allah.